yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ji bëri na ci ay kàngam yoo ne dañoo daw liste départementale yi ba pare daal dem ci liste nationale yi yéen a kaay gi de direct news xëy fekk fa buggaan ngay tane mu daal mer ba maara détail yi ndax dañ ko wax na ko yow élection yi mënoo cee bokk waaye tamit nee na loolee génn wu ci Macky Sall bay ba muy guuxi waaye moom buggaan nee dana def kéem kàttanam ci opposition bi xeex ba Macky Sall ñàkk a Wade Blondin Diop dañoo mer ba maara détail yi nee lu jëm ci wàllum xaritoo moo am ci biir coalition Yewwi Askan Wi daan nañuy wax tamit mi nga xam ne am nañu ko ci wàll wi yéen a kaay gi di Source A nee na bu ñu waxante dëgg explosion de colère moo am ci biir coalition yi Moustapha Guirassy dafa mer ba maara détail ndax fu ñu ko yóbbu maître Moussa Diop mi nga xam ne booli ko ci benn liste loolee moom tim daf ko mer ba maara détail yi yéen a kaay gi maanaam njaw dina wéy di desu xambin foofee mooy raw ci biir benn bokk yaakaar yéen a kaay gi réew mi quotidien nee na investiture yi bi ñu ko defee ak léegi bëri na xam ne wane nañu seen maire ku ci mel ni maire bu Grand Yoff di ma Jóob Jóob moom suppléant lañ ko def ci liste départementale bu Dakar moo tax nee bu ko ci kenn boole yéen a kaay gi di ñu xëy fekk fa Fadel Baro ak Bougane Guèye ñoom tim nee nañu élection député du am ci département bu Dakar respecté wu li nga xam ne mooy parité bi est ce que duñ ko forkuloo loolee ab laaj la boo xam ne laas moo ko xëy laaj yéen a kaay gii de l'info nee na en tout cas li amba de sall ñi nga ne gis nañ leen ñu tabbu leen ci coalition yi ay borom yi bopp lañ yoo xam ne bu ñu demee ca assemblée nationale Macky Sall dina way mbay ndax ku ci mel ni Ousmane Sonko Barthélémy Dias Guy Marius Sagna Thierno Alassane Sall Déthié Fall Bassirou Diomaye Faye a yéen a gi di Rewmi Quotidien nee na coalition wàllu Sénégal soo muy tuulee du dem ci élection député yi ndax nag dañu ko rëkkale nee nañu ko ay fan yoo xam ne war ngaa say parrainage lu toll ci ñeenti junni parrainage yéen a gi nee na Pape Djibril moom tim dañu ko recalé nee nañu ko am nga 48 heures war ngaa complété lu toll ci 2000 signature maanaam ñaari junni signature yéen a kaay gi délesé ko nee na benn bokk yaakaar ñoom jamono ji ngem nañu ba dëgër dañoo bëgg a gagné élection député yi ndax seen liste nationale bi nee nañu Aminata Touré moo koy jiite Amadou Ba moo ki giraaw wàll yi doy na war ndax lu jëm ci wàllum séddalib ceeb bi nga xam ne doon nañu ko fi def ci jamonoy coronavirus ja te marché transport bi ñu joxoon ko jóob si bëri na ñoo xam ne doon nañu ngàññi jóob si waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa of nag gis nañ ne jóob si def na ay léexóora ci li nga xam ne moom lañ ko dénkoon ca marché boobe yéen a di libération nee na rapport bi nga xam ne of nag génn na ko doy na war ndax lu ko wax ci Mamour Diallo 94 milliards yi journal bi nee na OFNAC daan na koy dëggal nee na ci lu jëm ci wàllum suuf soosu maanaam association de malfaiteurs moo si am ay nit ñoo lëngu di def ay ñaawteef ay samba boy journal bi nee na nag rapport bi mu wane ca diwaanu Vélingara maire bu Vélingara moom loxo ci poos lañ ko jàpp ci lu jëm ci wàllum guerre ak banditisme foncier yéene kaay gi nee na Kabiru Mbodj mi moom wari moom tim ci lu soxal wàllum fraude fiscale ak wàllum corruption wàllum guerre loolee la ko OFNAC joxar bi baraamu tuuma Mbaye Tine mi nga xam ne mooy maire bu Taïf moom tim nañ ko porté complété ca kanamu OFNAC waaye nag bi ko càmbaree daal koy lañ ba tey gis nañ ne def na ay ndëngate ci mairie bu Taïf yéen kaay gi di direct news nee na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Ndingler jamono ji maanaam sonn ba mara détail yi sonn nañ tayi nañ damm nañ dee nañ askan wi dëkk Ndingler jamono ji ab xiif bu métte métti moo leen di yoota maanaam ab tumuranke ak bekkoor la ko waral mooy seen suuf sa nga xam ne moom la ñu war a bayee loolee la Babacar Ngom bu Sedima teg loxo a ko bay ñoom suñ xëy duñu xibaar naan nañ ba maara détaillé militaires yi mer nañu li ko waral ñoom nee nañu sem gabi duñu ko xam ne moom la ñuy amale ñoom militaires yi nee nañu weer yi nga xam ne moom la ñu génn am na juróomi militaire yu faatu ci àllub Casamance bi waaye tamit gisuñu fa sem gabi yoon loolee moo metti militaires yi maanaam chef d'état-major général des armées gisuñu ko ci terrain bi loolee moo metti militaires yi yéen a kaay gi délibération nee na maire bu Malika jamono ji ma ngi ci guddi gu bët si dañu koy toppee ci lu jëm jëm ci ay léexóora ak njuuj njaac escroquerie ci lu jëm ci wàllum suufa moom maire bu Malika niki démb àtte nañu ko ci tribunalu Pikine Guédiawaye waaye nag nee nañu nañu ko tëj lu toll ci juróom benn weeri kaso yoo xam ne daf koy tëdd yéene kaay gi du source ak xëy duñu xibaar naan ñu ñëgg yi amoon ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram ke léegi tey mu jeex ndax signature protocole d'accord am na niki démb diggante gouvernement bu Sénégal ak waa SAMES ànd